bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm kawteef am na nopp dalootina olof njaay doon na wax naan bukki kenn du ko dénk yàpp bile yoon li gën a doy waar ci mbir mi mooy bukki bi dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàmm gétt gi waaw ca prison jigéen ya ci jurbel ab garde pénitentiaire moom moo fa ëmbal ab détenu lu doy waar détenu yu jigéen ya ñu tëj ca kaso jurbel dañuy faral di séq ak garde ya nga xamante ne ñoom lañ leen dénk ngir ñu sàmm seen karange bu ñu sukkandikoo ci journal bi di l'observateur lu doy waar a fa xew ndax foofulee ca kasab jigéen ya ca ab prisonnière buy wuyoo ci turu AK moom lanu fa ëmbal te ka ko ëmbal du kenn ku dul ñenn bokk ci nga xamante ni ñoom ñoo doon garde boobule prison moom AK dañ ko condamné woon waroon koo tëj ci lu tollook juróomi at ndax infanticide maanaam dafa rayoon xale waaw jur doom ray ko ca biir prison bañ ko tëj juróomi at la naroon defaat lu ni mel waaw ndax dafa naroon rayaat doom ja ginnaaw si nga xamante ëmb na ca biir prison ba lii nag la olof njaay di wax naan ñu lay jiñ dëmb ngay soccoo yaxu liir a ne moom mooy bàyyi doom ji dafa bañ ne du moom ca waxtu woo xamante ne nii ma nga doon torgal régisseur ba ca la agent garde pénitentiaire ba profito xam ne chef ba newu fa mu tëdd ak ndaw si ba mu jëlee ca ëmb ndaw si ci ay kàddoom ma ngi wax ne kenn forcé wu ko naam sax moom moo ko bëggoon ndax dafa soxla woon boppam yow waay samba doy na waar daal xew-xew bu nu mel nag duggulet ci bile prison ndax ci fàttali ca atum 1995 kenn ci agent administration pénitentiaire yi jotoon na fa ëmbal ab laata mu koy takk la bët yëm di jaajëfal